soo yegsee ci quai de pêche bu mbuur li ngay njëkk a seetlu mooy ñàkkum jën di luy jur ay jafe-jafe ci mareyeur yi waskatu jën yi wàcc ba ci jaaykatu galaas yi ak ñiy def puus-puus ak jaaykatu fruit yi yile jafe-jafe di lu takku lool suñu teewloo ñenn ci mareyeur yi waaw vraiment fan yi moom jën amul jën amul fan yi mais sincèrement doo mën a wax lépp quoi ñii nee nañu problème bato yi la ñii nee nañu géej gi mu amul jën indi géej gi moo normalul donc doo mën a wax ban problème moo tax di jën temps yi amul mais sincèrement jën moom amul moom. Euh, pour la moment nii liggéey bi dafa xaw a taxaw ndax problème mu licence yi géeju Sénégal amul jën te gaale bu ñu amulee licence mënuñu indi fi benn jën. bu dee fan yi jën yu bëriwul géej gi dafa bëri ay ngelaw. gaali du duñu mëna dem geej mo li forcé di dem geej dañ ci ah, am problème yu ci jankonté jànkonteel yu mit seen gaal day yaw parce que yalo li mo xaw bari te fi ñuy jëlee ji jën bi fay sori au niveau fi Sénégal que amatul jën dañuy dem ba boori guiné da loolu day sori ci gaalu banta yoyu da len di sono trop loolu xamna naa indi fi ci quai de bi nga mën cee gis si ñuy waas jën di ay jigéen yu am jom waaye li ñu doon am ci seen liggéey di lu wàññeeku lool ci jamono jii dañuy waas te waas bi moom demawul noonu bu jën amul du ñu mën a liggéey noonu la nga bu jën amul doo mën a liggéey Macky Sall moo war a dimbale nit ñi dimbale jigéen ñi te xam ne ay njoboot lañ yore so suñu fenn daa gën a wàññeeku kay jën amul kay maa ngi suba ba léegi ab téeméer laa fi am ab téeméer laa am suba ba léegi bu jën amul rek ñun duñu liggéey ñun jënd rek moo tax mu ñuy liggéey ngir sàmm jën yi ba mu mën a dem ci usines yi te du yàqu faaw glace am ci yoon jaaykatu glace yi nag seenu jafe-jafe di lu takku lool waaw waaw c'est vrai am am na trop ndaxte bon ñun glace jën a koy jaay quoi léegi bu jën amul day day feeñ ci ñun bon ndaxte da ngay dem usines yi jëf sa moyen dem xam nga yëpp benn camion di yëpp lu mot quatre cent mille mbaa yi nga ñëw di jaay bon bu bu taxawee lu yàgg lu mat lu mat une semaine mbaa mbaa six jours yooyu noonu xam nga day seey quoi buy buy seey di seey bon mën nga ko jaayee mën nga ko yebbi quatre cent boo ko jaayee ay deux cent cinquante mille ay affaires yooyu noonu day dem ba yàgg sa diggante ak usine nga day métti si yow quoi. ñiy jaay fruits ak ñiy liggéey ci pousse-pousse doon gis seen chiffre d'affaires di dox bu baax. waaye jamono ji daanaka dañuy faraatu rek. donc bu njëkk bi moom te moom amoon na moom mais léegi léegi amatul gisuñu jënd. mënu ñëw liggéey te bu ñu gisee jën ñu mën a liggéey mais boo ñu gisul jën duñu mën a liggéey moom waaw ñu ngi toogaay bi moom arrangé wuñu moom aussi yàlla na jàppale déedéet géej gi moo ñu yor liggéey bi yëpp géej gi su fekkee jën amul doo mën a jaay dara loo xamante ni dina jar bu jën amee nag dina xaw a tane mais jën moom géej naa am carrément fan yëpp dañuy ñëw nii toog ba ngoon yëpp ñu wàcc dem. acteurs yi yëngu ci géej gi di sàkku ci autorité yi ñu taxaw sàmm géej gi aar ba secteur bi mën a suqaliku. li nga xamante ne mooy yoon te état bi war ci dimbale nit mooy gouvernement du Sénégal war na jàppale euh, nappkat yi ci ñagal leen seen géej ci bato yi ak ci lépp li nga xam ne ñu ngi koy jànkuwaate pour ñu mën di nappi ci seen ñëpp am jënt licence bañ leen cee fekk loolu moom mooy moom problème na boo xam ne état bi war na cee jël ay matuwaay autorité xanaa ñu gën ñoo jàppale rek ñu gën ñoo jàppale aaral nu géej gi Sénégal ba nga xamante ne nii même daañu mën yem suñu géej di fi napp organiser ñu ko ba nga xam daañu yem ci suñu géej di di ci napp ñu bañ dem ci géej ak jàmm bu mënu lay ñàkk ñu dimbaliwaat ñu ci wàllum njaay meet encore parce que euh, saison bi passé ñun ñu ngi ci am usines yoo xam ne ba léegi nii ñu ngi tëdd ci suñuy xaalis yi mën ñu jot. dana woon bu ganee dinañ ñu dimbalal loolu la waxoon te gisaguñu ko. ñun de gisaguñu ndimbal waa ñu mën a liggéey xam nga lii du liggéey boo amee xaalis mën a jënd jën jënd di jaayaat di jënd di jaayaat di làkkat ci di jaayaat loolu da lañ bëgg xam nga la waas du liggéey. quai de bu Mbour di contribuer lu am solo ci économie dëkk bi. war a doon lu autorité yi di bàyyi xel.